Je euh, suis gërëm journaliste yi def déplacement ñëw ci point de presse damay barkelu dong mais sinon li suma collègue yi wax wax ji mot wax ji ci suma wax ji wante rek point ku nekk li la tax dugg ci politique yaa ko xam wante dama jàpp ni ñi fi ne nii dañu jàpp ni denrée bi gën a raar bi gën a ndóol bi doomu aadama yi gën a soxla bi waa Géejawaay gën a soxla waa maatam soxla ko périphérie bi soxla ko sénégalais yi soxla ko mooy la denrée de l'éthique justice ak lu djup ak lu sel. du problème de terre du problème aéroport du problème goudron Roland len bu baax ni aduna richesse mondiale bi day yok di dem rek wante li qui jafé aduna tay ji moy la redistribution la question de l'équité moment une question fondamentale Sénégal pays bi amon il y a 10 ans, il y a même 2 ans ou 3 ans, avec ce qu'on a dit, il y a des règles de double de yok. Il y a problème de gunatar. Ce qui est une question éthique. Tu as une question éthique. Tu peux te faire ce que tu as. Tu peux aller plus loin, prendre un appareil politique pour être un prolongement du combat. Tu peux parler aux enfants, di waxal mag yi di waxal jigéen ñi te encore une fois li ko lal mooy justice ak éthique su amul ci réew réew yàqu na Macky Sall awma problème ak moom par rapport ak loo xam ni moom mooy terre du suma problème du làmp yu tàkk du suma problème moom suy puukarewu ak suy wax li mu def day énumérer 1 2 3 4 lii laa def ma ne ko du foofu laa amee problème ak yow

Moi ni le premier pilier moi le pilier de l'éthique le pilier de la démocratie le pilier de la justice Mande lima indi ci kuréel googu ak ñima xam fi li tax ñu bok ci souvent on s'est connu à travers yenn combat de principe xamantewuñu ben benn gox musuñu militer ay parti wante da ngay gis injustice nga taxaw da ngay gis lu deug nga taxaw te ku ñu xam xam ni y a une constance ci yenn combat depuis bu ma nekkee man ci arène politique chaque fois ma dégg ni am na loo xam ni jubul taxaw naa bokk ak ñii bokk ak ñoo xam ni gor lañu am na li ñuy bañ xeex ko kon moom laa doon xaar ci coalition Yewwi Askan Wi te maa ngi koy espérer ba léegi li tax nag lii et j'avoue je confesse ça me gêne beaucoup bok ci et être obligé ñu def point de presse ni di wax wante dañuy wax ni sous loi De dëkk bi le peuple est souverain du peuple bi moom moo nekk féete kaw kon ci parti ci coalition ñuy jalgati di opprimer di di jalgati charte bi accord ma taxaw damay féetale côté peuple bi am un devoir de rendre compte surtout que ci biir coalition bi mayuñu ma ko ci biir coalition bi ça fait cinq jours une semaine ñoo ngi laaj ay liste c'est un minimum c'est gênant pour ces militants gênant pour les Sénégalais ñu ne la ci département bi lan ngeen def c'est un manque de respect metti na lool liste nationale xamoo négociation yi xamoo dang ci ciy bokk jékki-jékki ñu génnee la ci Aïda wax nako sank du frustration mais tey jii nag jël les Sénégalais à témoin wax tamit ak sunu collègues yi nek ci conférence des leaders nañu ressaisiru jox coalition bi limu mom moom jox sénégalais yi lu sénégalais dañu wolu té damay dégg ñenn ño xam dañu ciuné dina ay petit parti ay des identités etc. je dis dañu xamul nu sont teudé ak dañu xamul lan qualité réew mi ak ne fi mu xam-xam mi ak sont fi mu am problème éthique ay valeur ko yor da ngay dem ay nit yo xëy na ñu ngi toog seen gox ñoom rek mosuñu def politique nga jël leen ne dam la soxla nga def ko député nga def ko leneen nga boole ko ci gestion état bi ak gestion donc des affaires de la cité donc tey jii moment bi ñu doon former suñu coalition kenn ku nekk ci ñun xamoon nañ la li nga doon li ngay peser luy sa valeur ni la sénégalais gisee ñu ne ci dañ ko soxla waxtaan ak yow boole la ci. Boire la ci premier signataire yi nous sommes d'égale dignité kon quand on met en avant une quantité avec du populisme bokkuñu ci dañu jàpp ni li tax ñu jóg changer les choses dañu jàpp ni li tax ñu jóg mooy yaakaaru sénégalais yi dañu jàpp ni li tax ñu jóg mooy Sénégalais. mais malheureusement ce que nous sommes en train de voir est déplorable et très triste encore une fois de réaffirmer son ancrage ci opposition bi wante di wax nag ni ken duñu note, dañu ne yewi askan wi elle le rappelait tout à l'heure ku ñu yeewiwul ñun ñu yewi suñu bop, and ci ak askan bi yewi walé ko kon di sant ñep di gërëm ñep. di euh, yaakaar ni le point de presse là dina nek un appel simplement une conscientisation dinañu mettre de côté leur ego pour mener un appel conférence des leaders mën nous menons ñu continuer le combat donc encore une fois nous sommes de l'opposition nous réaffirmons cet ancrage là au sein de l'opposition nous nous battons pour des principes te am ci kër gi ak ci aujourd'hui c'est ce qui se passe et c'est ce qui risque de faire mal demain à l'État et au pays qui euh, semble manquer au pays et ce qui semble être dit et être entendu aussi, les cris de cœur des populations depuis fort longtemps, en tout cas depuis quelques années, c'est ce manque d'éthique, ce manque de justice sociale. Pas d'équité territoriale, pas de justice sociale, pas de justice même, je dirais, et pour toutes ces raisons, les populations sénégalaises ont fortement, fortement accompagné et appuyé l'initiative de la coalition Yéhu Askanui. Il y a eu de l'espoir. Et contre toute attente peut-être, nous avons vu les résultats à l'issue des élections locales. Toutes les grandes villes, dans toutes les grandes régions, ont été remportées par cette coalition qui permettait de faire espérer, de faire rêver. Il y avait un projet. Pas seulement un projet économique, mais un projet de refondation, un projet de régulation sociale, un projet dans lequel on repense l'État, on repense la politique, avec des hommes de valeur, des hommes de principe. Et nous nous sommes rencontrés à travers des combats. Nous nous sommes reconnus et connus et nous avons dit, nous avons des principes ensemble. Et chacun a mis sur la balance ce qu'il est, son cursus, son expérience, sa vision, son projet et ses valeurs. Et nous avons fondé la coalition Yehu Askanui. Ce n'est pas en termes de quantité, de nombre de militants, mais c'est en termes de contribution, de sa capacité à faire avancer et à transformer le pays. Et nous l'avons fait. Et les résultats ont été probants. Les résultats ont été présents. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est l'effritement de ces valeurs, la disparition de ces valeurs, et des valeurs lesquelles les plus essentielles pour nous fondateurs ou initiateurs de cette coalition, notamment la question de l'éthique et de la justice. Lorsqu'on met en avant une question partisane, de militantisme tout court, des questions parfois même ethnicistes, parfois même régionaliste. C'est tout simplement regrettable. À l'occasion d'une réunion, je rappelais personnellement aux collègues présidents de la conférence des leaders qu'une liste nationale doit refléter aussi la nation. Une territorialisation des candidats. Prendre en compte aussi, naturellement, les sexes. On n'avait même pas besoin de nous l'imposer par une loi prendre en compte la jeunesse, prendre en compte certaines catégories, les handicapés, etc. À partir de là, on saura la vision qu'on a de la gestion de l'État. Cet équilibre, ce juste milieu, cette façon de repenser la cohésion nationale, on doit pouvoir le retrouver quand on confectionne une liste nationale. Et dans les départements, naturellement, il s'agit de gagner, mais pas n'importe comment et avec n'importe qui. Malheureusement, tous ces principes-là ont été bafoués. Vous l'avez vu à Dakar, ce qui s'est passé Vous l'avez vu dans les départements Nous ne disposons toujours pas de listes. Nous ne savons toujours pas comment les, les listes ont été confectionnées au niveau national. On sait tout simplement, on observe, on constate que la charte a été bafouée. Quand on dit force reste à la loi, au sein de notre coalition, nous devons aussi dire que force doit rester à la charte si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos accords au sein de notre coalition, ne me faites pas espérer autre chose. On ne sera jamais capable de gérer l'État. L'État est une chose sérieuse. Il s'agit de choses sérieuses, de nos enfants, du futur, de nos aînés, nos doyens, de la santé, énormément de choses de sécurité. Et si nous aspirons à cela, à gouverner ce pays-là, nous devons absolument je ne parle même pas de, coalition, même pas de mon parti, mais seul, individuellement, dans ma propre famille, je dois observer, m'observer. Je dois avoir un comportement digne de mes ambitions, digne de ce qu'on attend de moi, digne donc de l'État du Sénégal. Et c'est une exigence. Il faut que les présidents de la conférence des leaders se ressaisissent. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la coalition Yahoui Askandi il faut moins d'ego et accepter les remarques, la démocratie interne. C'est comme cela qu'on peut bâtir une coalition forte, une opposition forte. Et c'est ce qui est attendu de nous. Et c'est comme cela qu'on pourra, en 2024, changer la donne au Sénégal. Merci beaucoup.